bu leen ñu fontoo ñi leen di topp nañ leen wax dëgg xaw ma da ngeen di classante xaw ma da ngeen di waxtaan ci suuf di business ci kaw maa ngi xaar nag ba benn teg vide di ñëw fi saaga ma wala mu naan ma baara ñi dañuy fo même bu nekkee dañuy fo pour man c'est pas le moment da ngeen leen war a xamal carrément ne leen l'avenir du Sénégal dafa nekk en jeu Sénégal ci boppam mooy waaj dem kaawo benn tànk ngi aduna bi ngi àllaaxira à tout moment Sénégal mën nañ ko suul Sénégal mën nañ ko fàtte wala yéen amu leen contexte bu baax wala amu leen contenu bu baax amu leen texte bu baax bu ngeen bind pour jox ko askan wi ay porte de voix yu toll nii yéen amu dara lu ngeen wax ci moment bi ñu toll nii réew mi di tàkk xale yi di jël gaal gi nit ñi lekkuñu naanuñu ngeen nekk fii naan juutal ñaari góor juutal ñaari jigéen sa yaay ne ko nangam di n'importe quoi même bu nekkee da di fo même bu nekkee da di fo pour man c'est pas le a besoin d'autre chose bu ngeen amul lu ngeen bind ma bindal leen rab de séjour